bi ma bi ma leen nuyoo ba pare maa ngi tudd Mbaye Faye maa ngi dëkk fii eh, bi ñuy wax Mbaaloo mooy village bi ngay gis bi à at bon à ci carrière bi lu ñuy dund fii nag ci li ma leen mën a wax bëri na ndax ay jafe-jafe yu bëri te yàgg moom lañuy ñuy dund ci wàllu environnement ndax euh, carrière bi mu ngi fi depuis booba xamuñ ñu sax ndax fi la ñu fekk fi lañ juddoo fekk ko fi waaye bu muy day màgg ba instant yu ñu toll nii toll na foo xamante ne daf ñuy indil ay jafe-jafe yu gën a bëri ci wàllu sante ak euh, ci wàllu tool yi yëpp lu mu si yàq bari na ndax su ma yeboo ne la bu fekkente ne da nga xool di consulter wala ñëpp ñu nekk si village bi doon dem di consulter wu médecin di fi ñëw di xool dina xool gis ay jàngoro yoo xamante ne bëri na bëri waay goo xamante ni duñ ci ko mën a faj amuñu doole te amul benn rendement ndax non seulement feebar yooyu day am mais en plus euh, ci wàllu tool yi mënoo fee ji loo xamante meññeentef bi dafay baax du ci wàllu garab du ci wàllu nawet bii ngay gis carrière bi fan yi dafa dawul waaye bu fekkoon ne muy dawul fii yëpp da ngay gis muy weex bu dee noor nag foofu la raay wi teen ndax da ngay dem ba ci suufu leel yi si fekk fa poussière booy lekk da ngay lekk poussière da ngay naan poussière dangay ngay noy poussière waxtuma laa nag ngay dox si kaw poussière dëgg la dëgg la ñu ngi am na ñu foog ñi nga xam ne xëy na yàlla def na ñu ngi daan seen doole di sutur ci man mi laa bokk ñu ngi daan seen doole foofu di ci suturlu waaye n'empêche liñ fi am liñ fiy gañe la ña nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéey bu fekkoon da ngay da doon téeméer la fukki dërëm bi sax amuñoo ko ci. kon la fu mu ne war nañ mën a doon loo war na mën a doon loo xamante au moins danañ fi def loo xamante ne euh, gàllankoor yi du bëri te du tee ñi fi dëkk suturaloo bu ndoxataal xam nga li nit diggante liggéeykat ak kuy liggéeylu faw mu am yenn saa ay jafe-jafe wala ay bunduxatal waaye bu ñu fekkee supporté nañ ko loolu xëy na ci ñoom la ay dégg waaw mais du ñàkk mais du doon buntu xataal boo xamante day tax yow boo du demee noonu daal du benn yoon sax du benn yoon euh, ba ci le 24 juillet 2018 si je ne me trompe pas le 24 juillet bii passé waxuma la bii nii nii mais 2018 sama doom boo xamante sama mag papaam ñoo bokk ndey ak baay fii la def ci accident. ci dawal oto dugg ci ambaa bi amba bi dellu gannaaw oh, kii euh, oto bi dimanche xëy na bon peut-être dafa manqué air wala daal mu am défaillance technique mu dellu gannaaw mënut koo téye mu daanu ci kàmb ji noonu la ñàkkee bakkanam. ñu ngi ci wax am na am na geste am na def nañ geste am na lu ñu def mais ci wàllu justice ba léegi mu ngi train bu fekkente ne am na yeneen lu des. muy enquête mali bi ñu def fu mu nekk nii xamuñ suñu mujj xamuñ suñu mujj appel bi pour ñu gis suñu bopp mooy que ne nit ku nekk boo xoolee ci sa bopp di nga xam sa moroom boo xoolee que ne lii baaxul ci sa ci man rek war nga xam ne lii baaxul ci samay morom yan matuwaay nga war a jël yow pour yow moomu bu fekkonte ni yow la du la dal nan nga mën a def pour du dal sa moroom loolu war nañ ko mën a te ñoom am nañ moyen soit ci ci euh, seen installation yi ñu koy arrosé ñuy arrosé poussière bi bañ a jóg wala ñu jëmbat ay garab et ñaar yooyu seen ñoo war a am dañoo war a jëmbat ay garab comme ay genre filao yoo xam te poussière bu jógee tam du demee noonu en plus ñuy arrosé seen euh, seen seen seen tap yi nga xamante moom moom la ñu ko produire comme boo seetee fii da nga gis mooy li ngay gis mooy tap war na mën a arrosé wu de telle sorte ko poussière bi du jógee noonu parce que bu doon Europe wala ci yeneen yeneen dëkk yi dinañ am moyen pour def sinon dinañ am solution pour def seulement xëy na fii dañu gis que ne amuñu doole amuñu fu ñu waxee amuñu fu ñu ko jooye amuñu kuñ ko kuñ ku ñu défendre moo tax ñuy def lu leen neex. li may tàggatoo mooy bu fekkente ne maanaam daal li may tàggatoo mooy nañ jël mesure yi ci war parce que sinon dina jur loo xamante ne fii dina dina doon lu métti non seulement village bi. du leen bàyyi mu jàll leen noonu parce que li li xew année yi passé dootuñ ko bàyyi mu jàll c'est impossible dañ ciy taxaw dañ ciy taxaw te fu duñ ci góobe gaaw amul lenn loo xamante ni nag dañ na taxaw rek reculer parce que non seulement man mii bind naa lettre bind naa lettre boo xamante ne man maa ko joxe ma am ñoo xam ne dañ leen a délégué ñu yóbbul ko monsieur le maire te bu li ci lu ñu wax jot nañ ko amul suivi jusqu'à présent arrêté le 4 bon euh, le 4 avril 2017 kon ça fait deux ans les mu mat deux ans lettre boobu amul suivi kon ñu yëglu nañ wax nañ lañ def li ci war muy monsieur le maire muy ñi nga xam ne ñooy propriétaire carrière yi fi nekk yëpp du benn carrière dong boo fi ne bari na fi ñëpp nag kenn ku nekk da ngay produire da ngay sànni poussière poussière bi ci jaww ji la def buy dem ci jëw ji suñu kaw lay jëm ñun ñoo koy noy ñun ñoo koy naan ñun ñoo koy lekk kon donc nañ jóg balaa jóg di wees li ñu bëgg wax ne yëpp wax na ko ba rek bokkuñu ay dëkk mais suñu village yi la parce que lu laal kii laal kële li mu wax ni ni bind na demande ñun ñi def nañ ko maintes fois li nga ni am nañu gis seen bopp ci kaw di liggéey dëkk ba demoon suñu dëkk lu mat ay cinq personnes ñoo liggéey ci chantier yi parce que boo ñëwee rang ku dëkk ngunjaan ñëw rang ki dëkk Ngoundiane moom na ma la mooy priorité moom la ñuy jël bàyyi ki dëkk Gandiol parce que ci commune rurale bi loolu tamit lu ñu méttee ngi noonu te danse yi yëpp ñun ñoo koy jël parce que Ngoundiane a ngi fii Gandiol a ngi fii kon de Gandiol poussière nord ku ne xam ne nii lay def kon lépp ñoo koy jël loolu daal moom mooy wax ji li kii wax mooy moo ci nekk rek ñoo ngi ñaan daal xam nga ñoom ñu jéem a jël ay matuwaay parce que lëyis kese laa gis fii ci carrière yi moom muy arrosé ay tapeem ko carrière boo demee tey comme nawet noonu nawet parce que day tooy lépp day tooy poussière du jóg te ab naar la ay garab kooku tana na parce que moom ku ne xam na ni moom mi ngi jéem mais ngi des ñëpp kenn ñëpp a ci yem muy sénégalais yi fi am carrière rek tubaab beeg tuwa ci yem faala wuñu nañ ñuul ay jaam lañ leen def loolu nag la ñu bëgg mu saafara wu quoi di la remercier bu baax nag di la ñaanal jërëjëf